li tax mu nangu ñu jox ma caabi ji te réagirul deful dara xanaa ni patt pataaral kii am na lu ma lal mais li ma lal est-ce que dama ko koy wax duma ko ko wax toog naa rek ba àjjuma ñëw ba trois heures de temps des ci julli àjjuma ma ci yéene lu ci dëkk bi yëpp nu ku yaakaar sëñ Babacar na ma fekk si ci bàmmeelam ñu ñu julli fa àjjuma et mu jeex bi mu mu jeex adduna yëpp fekk ma ñu julli jumaa ma ne leen lii dafa aay aramul parce que bu musiba amee dañuy def ñaari xaj mu jeex ñu xam ni li bëggoon doxul doxul li bëggoon doxul parce que itam nit dafay xam priorité lu dul priorité nga teg ko de côté jaru ko jaru ko jaru ko nag wax la ko waaye nag ñoom ay rek la bëgg ñu ni nañ ko ëpp ci buur te duñ ma bàyyi bi man li ma nekk kenn daju ko wallaay ndeysaan jëkki ba ca buur du ba rek wóoloowu ma sotti militaire yi ci dëkk ceeb de substitution bi ñëw seet si ma ni ma buur du lay nit duñ la may pour nga def ko ma ni ko naa ko def kay ma ko parce que loolu du seen wax buur du ma ko yow sa yaram neexul waaw ma ni ko weer wi feeñ na ma ni ko bu neuf heures rek maa ngi ca jàkk ci te ñëpp dinañ ma fekk ca neuf heures rek fekk yónni naa allah jimbaay

di ko woy ba ñu defee ni sëñ Babacar koy woy waaw ah parce que caaxaan baaxul wóolu ko dudul a cercle aksi ni def ma soxla ma génn mu ni te gouverneur waxewul woon noonu nangam nangam daf doon wax rek ni haut yi dañu xaw a foor yu kenn xamul yu kenn xamul waay yu kenn xamul billaay moom loolu da ngay jaaxle bon bañ ca jógee ñuy def tur te tournée yi moom doo xam ndax yow wallu daara rek moo la ci yóbbu mais doo xam façon bi ñu koy teeroo ñoom naka la ñëw ba saint yi gouverneur touché ma ni ma daal bu ma sañoon doo dem gaaye ndax dafa mel ni ci rapport yi ñu jot nit ñi daal bare na ñu fa dem te dafa mel ni jàmm yóbbuwu leen fa yow lañ fay xaar te comme amul ay mbedd yu ma mën a def ay militaire pour ñu protéger la ma dina ñaan ci sama wëllëre ak sa papa ak sama wëllëre ak yow nga bañ fa dem ma ne ko d'accord comme bëgguloo ma dem fa ma ne ko du ma fa dem te waxuma ko dëgg daa fa dem waaw mu kontaan nag dal di téléphoné commandant cercle bi ci Dagana wax ko ni ko Cheikh bàyyi na dootul dem naka laa ñëw ci kër gi rek fi ma dal man leen damay dem Dagana ah, kii gaaye wax leen nag ni yoonu dox si kon nag ku ci amul pas-pas na toog xaar ma ba ma wëññeeku ñi amul pas-pas toog xaar ma waaw yàlla ate commandant cercle jékki-jékki rek gis ma ma jaar Dagana ma nuyu ko mu ni ma amee foo jëm ma ne ko maa nga jëm gaaya mu ni ma ah gouverneur ma ni bàyyi ni ko eh gouverneur lu mu moom lay tere ma ko léegi mu ñibbi ci tugal man maa fiy des comme maa fiy des te surtout El Hadji Malick la te foofa la bokk ñu doon na fa bëgg a dem gouverneur tere ko ma ni ko ça n'a pas ni ko moo tax naa ca dem mu ne boo fa demee deret dana tuur ma ni ko benn deret du fa tuur maa ko wax naka laa dem gaaye bay dugg rek ni leen psychologiquement psychologiquement nañu jaar ci bàmmeel yi moom kat ñu dal di jaari ca bàmmeel ya diggante maam Alpha ak maam Faama waaw bi jur Seydil Hadj Malick ñu toog fa rek di jàng suñu jàng loolu intrigue nag waa dëkk ba li ca fa lañ ñu fekk ma jóg rek ànd ak ñoom buti kër ilimaan bi kër Aline Diop Maymouna naka laa ñëw rek nu ko wóol nit ñi ñu waxtaan mu wóol nit ñi dara xewul dara xewul lu dul jàmm ñu wóol nit ñi ma waxtaan ak ñoom quatre heures de temps waaw naka laa jóg ñépp di taggaate taal fetal yi rey fukki xer ak ñaar waaw waaw ñu lekk suñu xar naan Eh, njar eh, eh, naan sunu njar ñu topp noog fetal yi tagg nu ba nu génn dëkk ba ma ñëw gouverneur ni ma lii du kese kese ma ne ko du kese kese kay loolu loolu toujours dafay am moo tax fokk fokk xalaat bu sell mooy jiitu bu jiituwul itam du sotti loolu nun seet nan ko ba tàyyi dafa am bés ay gan yu jógee fële ca Sahara ñëw ñu ngi ñu fekk Kaolack ñu ni ñoom du ñu topp ci ilimaan bu nga xam ni dafay wat sikkimam <laughs> <laughs> ma ni kon de du ngeen topp ci suñu gannaaw ne ñun ñëpp dañoo war sikkim loolu kenn mësu ko gis rek ki indil fit fitna ba nga xam ne dañu doon xarek ñoom mujj na sax ma xas sikkim yëpp te waruma wax dëgg yàlla waaw ah, ndax dem naa ci ba di leen wax baytu ba <laughs> rus naa sax waxati baytu ba ndax ka ko wax dafa soxor waaw hmm. wa kullu mriin ذي لحية عذولية يقوم عليها ظن أن له فضلا وما الفضل في طول السبال وعرضها إذا الله لم يجعل لصاحبها عقلا نك أفير بمجنة بلغ بنيوني دنك ويدف والله ولو ملدو لكم أنا سيركل ومن nit dafa bëggoon ma ànd ak Alaaji Usmaan Kan ak Sëriñ Muniru ma ne ko ay ca naka laa ñëw fekk ko ci bureau ñetti chaise a ngi nii chaise bi mu toog a ngi nii mu daldi jóg ci chaise bi mu toog dem toog nale Sëriñ Muniru ak Alaaji Usmaan Kan séq ko ñoom ñett mu ni ma nag yow yaay juge de paix bi toogal ci sama fossé ma toog mu ni ma atteel ma affaire bi parce que c'est grave atteel ma ko man manuma ko atte ma wax ko bayti bi di ko borom bayti bi dafa wax ni bari na ku sikki ma du gudd te gàtt xel a tax mu wàcc ko mu gudd ma wax ko ko dafa ree ba bëgg a waaye mu ma li ma ci gis te gis ko mooy toll nga foo xam ni muñ rekk moo la war waaw mu parce que koo xam ni da nga yërif xale yu ñoragul ak mag ñu jaaxle mu ni ma rekk moo la war waaw ni ma loolu laa ci xam yëkkati benn ambolo bu def xaalis ni ma maa ko def ci nen gi ma ni ko bii dama mbax na tabarkal tabarkal loolu li ma ci am ci xeet mais bu ci ne li koy réglé doo xam la doo xam li koy réglé lan la man li may yëg rek mooy tànk tooñuloo yàlla di la wutal ay solution waaw man noonu laa ko jàppe jàppewuma ko leneen ba tax na looloo ngi ci ba ci sama diggante ak ab Ablaye Wade bi booba nekkagul président laaj ko ko benn bés rekk am lu mu tëral loo xam ne njariñ la ëpp na mu ni man rekk la ko yéene mu ni man rekk la ko yéene ñu doxal ko me ndekk suñu ennemi yi ñu ngi tëdd rekk waaye ci musiba la ñuy jëm ak ñun pour affaire boobu mu yabal Ousmane Ngom boo wooree Ousmane Ngom léegi mu wax la ko mu dem ca réew ba fa mu am boo ma wax moom ci téléphone ni ma yow rek la ñuy xaar ma ne ko su ma fi ñëwee danay yàqal Ablaye Wade lu ma dootul xam kañ laa koy defar mun maa loolu mënul nekk parce que affaire bi lii affaire bi laa affaire bi lii affaire bi affaire bi lii affaire bi laa ba mu mel na espèce lu ko gën ci àdduna amul mais toujours maa ngi am benn lu ñuul lu may seen yàlla xam na ko Ablaye jóge ci ñëw mi ngi ànd ak maître Madické léegi boppam doyatu ko ci affaire bi maître Madické moo jël wax ma ba defe ni convaincre na ma ma ni ko mukk mukk ma ni ko parce que yéen xam ngeen seen yéene ma xamuleen seen ennemi ma ni ko te c'est très grave billahi laaj ko mu wax wax ma ni ko mukk du ngeen fi jóge ba dañ ma jëppi jëppi ba ñu toogee ba am fukki fan Ablaye ñëw seet si ma ni ma yow ku la xamaloon affaire bi ma ni ko yàlla ma ko xamal ma ni ko mu ni ma suñ ko defoon ndeke guerre civile am ci réew seetal loolu pour wax la ni réew mi ma ko jàngal réew mi ma ko jàngal yàlla xam na ko loo ci laal rek xam na nu fu mu jëm moo tax yi ci bare bare boo ko gisee da ngay xam ni nit ñi tapaskat lañu da nga xam ne tooñkat lañu te itam lu ci ëpp ci réer lañ koy teg te te réer nag mën na jur la ay yàqu-yàqu waaw dama dem Makka fekk fa sama wëllëre bu amul morom ñu jox ko projet jàkka Makka ak bu Madina boole ko budget yu dul jeex mu ni ma loo ci xam ma ni ko man daal su ma doon yow doo ko ñeme bu mu jeex ma ni ko ndax liggéey yu mel nii normalement élément sacré yi ñoo wër ëpp doole élément profane yi ma ni ko ndax bu élément profane yi ëppee doole suuf si ñu tudde ardul quds dafay mujj soppeeku ñu def ko fu ñuy passé vacances waaye fu ñuy ñaanal si mu nangu dootu fi ma ni ko teyit man na porté tort buur bi ak commandant ma ne ko man loolu laa ci xam pour wax la ni li nga ko wax noonu gisuloo ci benn ay gisuloo ci benn ay bu ko defee moom mu roccee ko daw gannaaw gi ñeneen jël ko waaye bi ko ñeneen jëlee itam seen dal la ràppewu ca ça il faut man xam naa loolu moo tax toujours damay wattali ko gis nga jàkk sëñ Babacar bii am na bés Abdou Aziz ñëw seet si ma ci il y a une quinzaine d'années il y a une vingtaine d'années ngi ànd ak benn architecte boo xam ne njabootu maam Serigne Touba la ni ma kii laa bëgg rek mu toppatoo ñu affaire u jàkka ji ma ni ko waaw waaye ñaan ko ko bu mu ko décorer mukk ko parce que zina bokkul ci diine wax ko ni ko ko décorer na ko bàyyi nit ñi di ci julli di ci ñaan waaye bu dee dañuy dem ba seetaan di ko seetaan man ko yàqu-yàqu dafa dugg waaw ma ne ko nu ma xam la man yooyu may wax dama ko xam mu ne ma kon nag dañu def loolu waaye daal du aay pour suñu mbokk italien yi yi ñu ci jotoon defar comme amul solo ñu indi ko benn yoon ma ne ko ba tey bu amul solo rek parce que man noonu laa gisee sëñ Babacar moom a jàngal ni nit ku ñuul moo moo a sell pas su diine waaw li ma xamuñu ko nag ñoom xamuñu ko moo tax nag xam ko jot na xam ko nag jot na parce que nit ku weex lu rafet rek la xam ala jabdu kan dafa defar jàkkaam ca kaw la def ko jàkk néegu ñax yéen ñëpp xam ngeen ko sëñ Babacar Si ne ko mukk da koy tabax ma ne ko moo ko tabaxee ku ci julli du nangu parce que dañ koy seetaan waaw gis nga yooyu dañ ñu koy teel a jàngal nu di ko fekke looloo tax du ñu encouragé nit ci muy décorer benn façon bi lu jëm ci yàlla loolu mooy li nekk waaw looloo taxoon ma ni ko mukk nañ ko def bu simple ma ni ko ndax sëriñ Abass Thioub dafa daan wax ni bu fekk ci nit dëkk bu tawee du tawte rek nañ ko julli moo gën sëñ Abbas ci bu ko daan wax su ko defee ci biir loolu yooyu yëpp luñ nuy jàngal la ñu xam lu ci wàllu diine ak lu ci wàllu folklore dañ koy xam lu ci wàllu folklore dunu sax lu ci wàllu diine daanu sax donte lu simple la sax loolu mooy li nekk te toujours toujours loolu mooy wéy toujours loolu mooy wéy bu ko defee nag dafa am xeet yoo xam ne dañu xaw jegeñ bakkan dañu xaw jegeñ bakkan ba tax na li Maodo daan wax ni bu leen kenn roy ci diine mooy dëgg Maodo daf ko daan wax mu mel ni kon yooyu yëpp buñ ko xasee yóbbuloo nag daanu mën a organiser ci suñu niveau lu wax jadul bare te njariñ la bare lu wax jëtul bare te njariñ la bare lu wax jadul bare te njariñ la bare ndax ku toog atu yàlla am njaboot te par at rek nga leen di gis booba am na loo wóor waaw man maa leen ko wax hmm. ba na situation boobu rek mooy li nga xam ni ma nekk ñu jëm ci bàyyi xel te xew-xew yeeg xoy-xoy yi surtout xoy-xoy yi ñu ko dama am sama benn jarbaat tubaab la waaw maanaam nit ku weex la jabaram moom tubaab la waaye moom nit ku weex la parce que pakistani la mais ki mu takk européenne yàlla àtte mu jënd benn jullikaay jullikaay mu jënd ko gis nga sunu mbokk labbi yàlla daf leen may xel temps bi ñuy bare doole dañu bari lu ñu tabax ñu dem ba néew doole ñëw mënatuñ ko utiliser te bàyyi ko mu yàq aram na ñu di ko jaay te loolu ñun bu ñu ko doon def rek mu baax parce que di nga gis ko tabax jàkka dem ba dootu ko mën a entretenir bëy bëy yaa ciy mujj ma wax la ko mais ñoom duñ ko nangu dañ koy jaay buñ ci jaayee fukk rek entretenir ci benn te kooko xel la sama jarba boobu jënd ci benn benn jullikaay pour dëkkee ko ma dem fa seeti ko waxuma la dara mais valeur bi jullikaay ba am kenn mën la ko nettali te mooy jamono yi ñu baree doole ñépp di sukk ci seen kanam ndax bu jëkk religieux yi ñépp daan sukk ci seen kanam ba yàlla walbatee jamono ñoom ñooy mujj wëlbatiku di sukk ci kanamu ñépp parce que noonu la jamonoy doxe fa tilkal ayyaam waaw kenn amu ci dara ñu jënd ci nag benn benn chapelle noonu mu ni ma kay visité ko ma dem fa euh, la mu ko jënde jar na fukkam yàlla xam na ko parce que ci euh, li ñoo tuddee marmar wax su moom lañ ko liggéey xam nga marbre ñaar la ma arab yi ñooy wax marmar waaw boo xam ni bokkuñu diine waaye nit ku ñuul la ko man bokkuñu itam réew waaw waaye nit ku ñuul la ko man sama wëllëre itam mas na ko denc ba ñu teqali ko ci façon bu xaw metti te moo di ki Senghor jëkk denc muy doomu Félix Éboué baayam ku am doole la te tudde nañ ko place sax ca Paris bien que nit ku ñuul la yàlla ate comme doom bu góor rekk la am ak Senghor ma gis sam benn sët bu jigéen bu bokk ci daayira bi ma ko kii may naa la nga nekk mareenam waaw mu bëgg ci wallaay ndeysaan ba am ku ko bëgg ki ko bëgg jullit la te moom Senghor a ko doon denc ñu def sëy bi ñu teg ci fan yu néew mu seet ni ma daal dama dégg yu ñuy ñuuru ma ne ko yu deme naan mu ne ma dafa mel ni dañu bëgg ma tuub ma ni ko yow ci xalaat mu ni ma bëgguma ko jeex na loolu mufti amu ci pexe ilimaan amu ci pexe keneen amul ci pexe te dëggu nga ni bëgguloo tuub mu ni dëggu na ni bëgguma ma ni ko jeex na jeex na waaye gis nga loolu am na ñu ma ci indi histoire yu la kenn mënul nett mais damay laaj nit ki am xel ni tuub du sëy du tax ma tuub bañal ko boppam kooku moo ko bañal boppam il faut que ñu wax ko ni ko moom mooy responsable lu dundam bu fekkee bëggul tuub kay du tuub kooku rek mooy li nga xam ne moo ci nekk parce que itam am na ñu mënul comprendre nit kuy tuub pour pour pour sëy am na ñu ko mënul comprendre man mi ca laa bokk waaw ndax def naa ko ba tey bu ko defee man ma féeteeg moom di ko wax ni ko rek bu fekkee rek bugguloo bu la ci gën dugal maa ko wax te itam nag loolu ñëwati dal ma dal ma fii ci ndakaaru te loolu Paris la ma daloon ñëw dalati ma fii ci ndakaaru yàllaate koo xam ne sama cousine la ñoo bokk famille mais moom chrétienne la jëkkër ji koy bëgg musulman la te sama mbokk la tukulóor la mu ni ma duma tuub parce que man sëy jaralu ma tuub dëgg-dëgg ma ni ko te dogu nga ci mu ne waaw ma ni ko bul laaj ilimaan bu laaj làbbe bu laaj keneen bu fekkee loolu rekk mooy sa bëgg-bëgg demal sa yoon parce que àdduna it noonu lañ koy defee man noonu laa gisee àdduna mu d'accord ceeg man lu mujj na sax sëy baam waaye tuubul waaye yàlla def ci ay njaboot kooku fii ci Ndakaaru la ma dale bi ci des Abidjan la ma dale xale bu jigéen bi chrétienne la ivoirienne la xale bu góor bi musulman la sénégalais la waaye ñoom ñëpp ñu nga foofu ñu bëgg sëy Alaaji Amat Buya moo fa nekkal sëñ Babacar mu ni moom du def mukk mariage bi labbe bi itam moom itam du def mariage bi mukk ma ni daal affaire la boo xam ni ni mu simple dafa ëpp il faut que ñu gis leen wax leen ko ni leen lu simple xam nga fu mu mujj mooy labbe bi def ñaanam alay jëmat bu ya def ñaanam mu jeex tàkk ñu def mariage waaw parce que yu mel noonu il faut que nga dox ko wax ko loolu mënul ñàkk parce que jamono bi nit ñi da ngay gis ku nekk di jàngale diine di jàngale diine di jàngale diine boo ko ne luy sa métier de la ko te ku amul métier warul jàngale diine nag ah? ku amul métier warul jàngale diine nañu bàyyi ñi am métier ñuy jàngale parce que ku koy nga am sens responsabilité te ku amul métier nag man gisuma war nga war nga jàngale diine il faut que ñu encourager nit ñi ñu wut mécc parce que farata la parce que farata la toog noonu rek dans un continent où les gens ne travaillent pas kooku baaxul kooku baaxul il faut que ñu encourager nit ñi ñu am mécc parce que farata la farata la man de loolu laa ci xam-xawma ci leneen bu ko defee nag man gisuma métier bu ma exercé wul ci àdduna man gisuma ko parce que looloo war waaw looloo war dama xëy rek lancé ci affaire mbay ñaari at laa ko def am ci dara gis ni war naa dugg ci transport ma dugg ci transport ñaari at ñett laa ko def génn ci dem jënd usine ca Jurbel ñu indi ca coow ma dem jëndi usine ca Rufisque seetal loolu te kenn ëpp ma cër ci dara ji waaye bu ma deful dara ban valeur la loolu di am loolu amul benn valeur il faut que nit ñi def dara il le faut absolument parce que sëñ Babacar Si nee na ñaar Maodo tax ma def ko lekk àddiya ak sol ganaam boobu ne dama waatoon ci sama diggante ak yàlla ni duma ko dul waaye jaaxle tax ma def ko mu ni bi ma jëkkee tàggu Maodo ni ko damay def commerce nee na mu ni ma dara nekku ci waaye nag dafay soxla nga summi mbubbu cëriñ mbubbu cëriñ fu ko nit yóbbu échec la fa yam nee ma déglu lam ma wax nee may jóg mu dindi téeméeri dërëmi nguur du jox ma te booba kenn xamul na mu toll fortune la woon nee ma def ko capital nee na mu répété ma bi may gunge ni ma da summi mbubbu sëriñ nee ma ni kon naa ko def nee ma dem rek jënd marchandise jël ñaari wagon def ko ci wuti dakaar leen naka laa ñëw Dakar dem fekk maam Anta ma ni ko rek soxna si dama indaale ñaari wagon bëgg nga lijjantil ma ko ne mu ni ma loo ci bëgg naa ko def ne ma ni ko kon nag wagon yaa ca gaar ba nee na Maodo li ma digaloon ma dem violé ko parce que nekk commerce langagem la am waroon naa wax soxna si ni ko nga jaayal ma ko xanaa ma naan ko nga lijjantil ma ko seetal loolu nee na soxna si lijjanti ko na mu daan defal Maodo mooy lu Maodo ñëw mu maye ko ne man ma jaaxaan rek taaliba yaa ngi ñëw di nuyoo te loolu la ma Maodo tere woon nee ba mu sottee ma ñëw ci soxna si ni ko naka affaire ba def mu ni ma loo ci bëggoon def naa ko waaw ah. li sa bàyyi daan def yëpp def naa ko may naa ci diw may ci diw may ci diw nee na xamatuma lu may wax ne ma ñëw ci Maodo nee toog rek mu ne waa sa affaire ba fu mu mujj ma ne ko ah, affaire ba di doxul mu ne ma foogoon naa ko ah, waxoon nal mi ku bëgg liggéey da ngay summi mbubu sëriñ loolu mooy jëkk jiitu waaye nee na man maa ko def ne ma rus lool jaaxle ñu teg ci ñetti fan ma dellusi ni ko léegi daal dama bëgg bàyyi commerce bi te def mbay mais mu ne tekk ba mu yàgg ni waa ah, am na lu ma ci gis léegi ma ni ko lan la woon mu ni ma sa tuur siiw ci te doo ko jariñoo ndax mbay baykat a ko mën te yéen nag mbayum noos ngeen xam waaw ma te mbayum noos du dox nee na ma xam ni wax na dëgg waaye ba tey gàcc gaa ma topp rek nee ma toog am ñaari fan dellu si seet si ko ni ko dama bëgg toxu dem sookoon ne mu ni ma tàllal sa loxo ma tàllal sama loxo mu <laughs> ma dem nee na ñaari fan ñett ma réfléchir ko bàyyi naa yoonu sookoon ba mu ni sa loxo ma la nee na ma xam ne daf ma jépp pour wax la ni yooyu farata la la pour nag doomu sëriñ nga rek tax nga ni doon liggéey catastrophe catastrophe il faut que nga liggéey kooku mënul ñàkk parce que du la xañ dara liggéey moo gën loolu dafay am toujours man yàlla dafa dogal ragaluma ci liggéey dara moo tax duma bëgg sama njaboot ragal ci liggéey dara waaw loolu toujours dafay am dugg naa ci transportu taxi dugg ci transportu car rapide dugg ci transportu kamiyon euh, liggéey naa ci dër bële ca mbooloo liggéey ca Dakar lay nga xam ni fa lan daan nekk kenn mënu la nettali situation ba ñu daan nekk la ma ca sëñ Babacar jëkk ñaanal ma dem mu ni ma da gas ba mu xóot nga def ko fa ma gas ba mu xóot def ko fa foofu la phosphate ba génne ma xam ni ñaan ngaa ëpp yàlla xam na ko Alioune Mbaye Paala député maire bu Tiwaawoon bés bu ne mu ne ma bu doon keneen daf leen di poñe ñu fay ko ma ne ko duma ci fekk mukk ba tax na yooyu ëpp nañu di ko négliger parce que dafay am njëriñ dafay am njëriñ lu am njëriñ lay doon ndax bi may def transport eh, naka laa ca dem ba véhicule yi di màggat rek ma jël ko joxe bi mu nekkee ay taxi bi ñu demee def ko car rapide leen rek laa ca d'accordul woon pour ñu def ci sama tur ci biti xam nga nit ñi lu ñu def rek dañu wut luñ cee sax ma ne mukk bu leen ci def sama tur bu leen ci def photo sëñ Babacar yi daal buum ca am parce que boo fonkee sa kilifa doo jël photom di ko def ci car rapide kenn du ko def ñu ma xam ñëpp duñ ko def moo tax rek ba ma ci jógee ma dugg ci camion moo ci jógee ma soog a dugg nag ci lijjanti yi tabarkalla tabarkalla loolu rek moo ci ne am na ñu reproché Abdou Diouf yu bare sax mais Abdou Diouf it wax dëgg yàlla bare na luñ ko reproché te defu ko man maa ko xam moo tax tey baax na de tey moom baax na parce que nag Abdou du yab nit ñi ba mu jeex loolu mënul nekk moo tax bare na luñ ko mere te bare na lu mu ca def ci lu baax nag man maa la ko wax waaye dafa am loo xam ni góor du dem ci mbedd mi di ko wax loolu mënul nekk ba tax na kon nag loolu noonu lañ koy defe waaye nañu bàyyi xel liggéey ñàkk liggéey moom musiba la loolu moom musiba la nañ ko bàyyi xel moo gën tabarkalla la yooyu rek la ñu seq ak yéen gannaaw yonent bi loolu lañu ñu ak yéen te yonent bi itam li ko war yëpp def na ko waaye nag tabarkal la tabarkal la nu ngi fii ci Sénégal nekk fekk mag yu baax yoo xam ni euh, position bu ñu jël ñoom ñu nga ca sax waaye ñoo koy cautionné tabarkalla tabarkal loolu mooy li xam ni moo nekk bi xawlillaahi wa quwwati tabarkalla ñu ngi ñaanal yiw ñu fi toog ñépp góor ak jigéen mag ndaw ba ci suñu sang yi bokk ci gouvernement bi te ñoo fekke ci jataay bi yàlla ak wéttal li ñoo tax ñu def ko te wéttal baax na mi ngi mel na réception bésu gàmmu sëñ Babacar daan na ko def réception bésu gàmmu sëñ Babacar daan na ko def waaye dafa am nu mu ko daan defe mooy bu ñu demee ba ca jumaa ja ba julligee ba noppi ci la tubaab yi ñëw pour ndokkeel si ko waaye bu ñu ñëwee li muy bari maslaa yépp du nangu seen tànk dugg ci biir jàkk ji te nekkul ko fanatique waaye am na fu mu ko teg xamuloon toujours ñoom ñu xamal ko seen bopp duñu dugg si fekk si ko ci biir jumaa ji mukk bu ko defee nii rek la leen di def loxo ma wax bu jëkk wax leen situation bi ni mu demee rek ñu daldi di yebbee ku dem waaye réception ci bii façon nag dafa am lu ko sabab li ko sabab mooy nit ñi ci ñiy yéene Senghor jàmm dafa am ñu ko wax ni ko na bàyyi di yónnee tey demal boppam ci réception yi mu doxal ko bi mu koy laata doxal mu gis ma ni ma daal dama la doon wax ni dana ñëw Tiwaawan ca gàmmu ko wante li ma jëfandikoo ci Tuubaa rek laa fa jëfandikoo moo di dinaa seeti sa oncle mais du ma mën a ñëw seet si la ndax su ma demee Touba dama seeti Serigne Falilou mais du ma seeti Serigne Cheikh ma ni ko kooku dara nekku ci ma ni ko yow kilifa nga yaa xam li nga bëgg li nga bëggul ma ni ko kooku noonu rek la toll yàlla ate mu mel ni daf ma xool mu ni ma déet nan waxtaan rek est-ce que bëgg nga ma ñëw seet si la ma ne ko ah kooku nekkul ci sama loxo yow li nga bëgg wax nga ko kooku nag lool rek la ma ko bu ko defee ñu ormalal la sa bëgg-bëgg mu ni ma déedéet bàyyil ma si la ma ne ko ci gàmmu gi mu ñëw seet si ma ñu recevoir ko ci la réception yi commencé mais bi ma seetsee ba dem dakaar lu mat fukki délégation dem nañu seet ko ni ko lu tax ngay tudd turu Sëriñ Babacar ca Tiwaawan billaahi wal kitaab saaga ko muy jooy ñu saaga ko ni ko lu tax ngay tudd turu Sëriñ Babacar dégg nga warul la Cheikh Tidiane la ci tugal ñu bàyyi noonu waxuñu pour wax la situation Sénégal rek ni mu mel te ña ko doon wax ñëpp ay irresponsable seetal loolu yàllaate ñu doxal ko faf man ma juboo ak Alaaji Abdu Alaaji Abdu ni ma nañ ko faf def benn réception ma ne ko moo gën waaye nañu bàyyi beneen passé bu déwénee ñu def mu d'accord ci ci déwén sa mu yónnee fàttali ma ko ma ne nañ ko def benn moo gën waaye buñ ko defee benn nañ ko yóbbu kër sëñ Babacar moo gën a rafet ma nettali ko nag li ci Senghor dajoon ma ne ko parce que nit ñi bu ñuy def caay-caay da ngay ko opposé mu d'accord ci yalaate mu ni ma waaw bon d'accord nañ ko yóbbu ko sëñ Babacar ñu yóbbu ko fa biir ba biir ñu gis ni journée bi dafay xat man boobu côté sax gisuma ko woon waaye allah jabd moo yónni Abdou Aziz ni ko waxal Cheikh ni ko journée gàmmu bi buñ ci mënoon bañ def réception moo kat ndax itam boobu rek la talibé yi am te buñ ko boolee ak réception yi duñu mën a ziyaara dafay xat te kenn du xam lu muy niru te wax na dëgg

débarquement ba woon ca Normandie la ko tudde ma ni ko waaye am na lu ma ci gis bu tëbee tëb dindilu ko dañuy wax ne ah moom kat dafa jubóog doomam bëgg dàq sengoor ma ni loolu lañ koy tudde te dañ koy jaarale ci kilifa yoo xam ni fokk ñu saisir ko moom pour mu dellu gannaaw te moom toll na foo xam ne bu jëlee décision bu mel noonu waru ci dellu gannaaw xëy ko loolu rek laa ko gis na ko seet ba xam te laata mu ne gis na ci wàll googu waaye mu ni ko nekk kon buñ ko defati ci journée gàmmu gi nañu bàyyi ba ca gannaaw ëllëg si ndax suñu mbokk yi nekk Tuubaa noonu la defe defee ma ni ko ah xam naa toppandoo de baaxu ma ne ko ñaari nit ku baax du toppandoo waaw ah. te kon dafay mel ni espèce du toppandoo la mu ni baax na kon ñu ñu réfléchir ci man ci laa commencé di def sama désengagement waaw ah, ndax itam seet naa nit du farat comme du farata te itam mën naa am yi dugg yi génn yi dugg yi génn ma ni kon naa leen féexal tuuti ma leen fexele dinañ ci réfléchir te dañoo xam ban solution la ñuy jël et depuis ñu ngi ci fexel depuis ñu ngi ci fexel il faut dire la vérité waaw ah, ma ni kon nag parce que dama dama dama am njaboot waaw ah, te njaboot yi léeg-léeg nga gis nit wax leen dara te il faut que ñu leeralal leen ba ñu xam ni yooyu du problème benn problème parce que itam euh, politique politicienne baaxul baaxul mukk mësuma fàttaliku fu ma ko doxalee ak Ablaye Wade mësuma fàttaliku fu ma ko doxal ak Abdou Diouf mësuma fàttaliku fu ma ko doxale ak Senghor politique politicienne duma ko doxal mukk parce que amul njëriñ amul njëriñ ab Diouf campagne présidentielle am bi mu ñëwee seet si ma def na fa quatre heures de temps ba tey waxu fa politique politicienne francophonie la fa wax ma xam ne am na lu xew ba mu jeex laaj ma lan laa ci xalaat wax naa ko mu ne ma liggéey bi ci Senghor liggéey noo ko gisee wax naa ko presse bi ci wax ca tugal di attaquer sengoor wax naa ko ñu jóge ca dem ci wàllu

ñëw na fi ba dem kenn yóbbu ko ma ni ko waaw parce que ci man la daloon mu ni ma dama bëgg ñi ma koy doxal bu ñu jógee États-Unis ba ñëw it nga defal ma ci noonu pour nga gisee ñoom ba xam naka lañ koy doxal ma ni ko mën nañ ko doxal mais il faut faire attention parce que y a des risques ko y des risques kon nag da ciy bàyyi xel ma ni ko man doxal naa ko maag Faysal doxal naa ko ak Assane 2 ma di ko doxal naa ko ñu bare mais dama ci mujj génn ko li ci nangam la nangam la nangam la nangam ko sax fédération des associations islamiques Dakar saisir il vaut mieux nga traiter ñu les trois religions révélées ci suñu symposium parce que dañ ci invité yépp et je dal daal dimbale ma ma bañ ko traité te traité islam et négritude moma ma ñu ne kon d'accord bi ma ko waré traité dama daan comme dama grippe bu mais toujours ma waaw médecin ma symposium yàlla mujj mu réussir islam et négritude ndeke am na sama benn mbokk bu dem monte ay kilifa tubaab ak ay kilifa arab ni leen affaire u négritude kenn waru ko dendale ak religion kenn waru ko dendale surtout ak l'islam kon nak fexé len ba Cheikh du traiter même mais mujj naa ko traité waaw yàlla def ca ndam parce que Senghor moma jëk jëkk félicité ca affaire bi té ñu bari dañ ñu woon Cheikh da fay dem rek pour jël euh, négritude ak l'islam may ko Senghor comme ça mais savaan bala def yalla xam nako euh maître Doudou cham ñaan ma ni ma na nga fexe ba édité texte bi ba léegi defuma ko euh, Senghor ci boppam ndokkeel ma ci euh, ña ko fekke woon ñëpp gis nañu affaire ba na mu demee ndax la ma ci jublu woon itam mooy Senghor sonn na ci mais itam am na côté boo xam ne ñun mën nañ ci intervenir te du yàq dara parce que nag itam ci daara la ñu ne mais quand même de temps en temps war nañu dugal suñu loxo ci yenn yi aayul waaw moom la ñu mujj def ma gis nag xam nga moom li ministre de l'éducation bu Mauritanie wax kéro wax ni mom nelawul biñ ko waxé ni Cheikh fay traiter islam et négritude parce que dafa defe ne da fay jël négritude bolé ko islam may ko Senghor loolu lañ ko waxone mais mu mom moom am na mbett parce que xamul ne affaire bi ni la am importance te booba buubu ama moo jiite woon réunion ba moom lu mu waxul am ni daal lii yéex nañ ko def Senghor it ni ma naa dem seeti ko ma ni ko demal feebar mu ni ma déet du yàgg c'est pour une quinzaine de minutes ma dem seeti ko mu ni ma demal la doon félicité ci affaire wax wax yu rafet ba noppi pour wax la nii Eh, lu lu daara lu daara mën war dugg rekk nun fexe na nanu pour dugg ci luñ ci demit ba gis ci yàqu-yàqu rekk génn nañ ci souligner yàqu-yàqu ndax dama gis Faysal boobu mooy dara bi mais bi muy lekk naata nekk dara bi

ma jëlaat projet trois religions révélées ma dem seeti ko ñu waxtaan ci boobu sax mi ngi feebar dem Suisse ñu opéré ko waaye terewul rek mu gisee ak man gise bu am solo maag moom ak Mohamed Sourou Sabane ak ministre des affaires étrangères ak directeur bi ne moom roi bi ñu waxtaan ci benn jataay ba d'accord mu ni dana bind Senghor pour demande ko moom mu organise ko fii ci Dakar lettre bi mu bind su ma gis mukk lettre bu amee noonu importance mu ni mu nga yóbbul ko sengoor ma ne ko ah dama nekk ci ne mënuma ko yow yaay wut ku ko yóbbu mu ne ma déedéet mën nga seet kon mu nangam booba xaaj Moustapha Cissé ma nga ca ambassade ba foofa ma jox ko leetar bi mu indil ko Senghor mais Senghor na ko la ko jàng rek ñemewul torop gis ni y a des mu tey ca naa bàyyi ba Cheikh ñëw waaye ci diggante bi xam naa ni am na kilifa gu mag kum ci waxtaanal kooku ni ko bu ci précipité man xam naa ko naka laa ñëw rek mu ni ma oui mais cher affaire bi mais c'est tellement important il faut faire attention nangam nang xam nga moom buur la <laughs> kenn na xamul affaire am la te it mujj na bëggatul sax toog ci réew mi te di ko nëbb te di ko nëbb bés bu ne mu won la kanamu dama bëgg a dem ma du ko wax dafay fexe rek ñëw naa bés fekk mu téye nii ci table bureau ma ni ko mais lii lan la mu joxoñ ma téléphone bi ma ni ko dagg ko ko mu gën mu ne ah non sañu ma ko parce que état bi ma ni ko kon nag mu ko waaye boo fekkee na mu bëgg a dem te la ma doon wax ni ma mais Cheikh Cheikh les deux collègues là qui qui ont traversé notre histoire de de décolonisation ku ci am ben ele ak ku ci am ñaari ele mané ko mel lolu xam nga ko mëna ne ah déedéet xamuma ko de ko da bëgg dem rek xam nga ku ci am ben ele xam nga ku ci am ñaari ele xam nga colin colin fi nekkoon colin ben bi suñu gorul bi ci dess suñu copain la mu kan mo ci am ben ele ak ku ci am ñaari ele té yoy yëpp bëgg dem rek taxoon na ndeysaan affaire ba ñu mujj ko sét ba génn ci ndax risque yi dafa amul limite je te jure yi amul limite man seet naa ko ci biir seet ko ci biti mais risque yi amul woon limit te xam naa ni am na ku ko souligné ku nekkul ci réew man xam naa ko waxu ko nag waaye xam naa e ñu toog toog toog toog ba teg ci ay fan Euh, li ma ca doon ragal am ca ñu faaf assassiné roi bi Mohamed Surur Saban taawam de euh, mu def ko espèce de crise moom itam mu gaañu directeur de cabinet ba gaañu ministre des affaires étrangères gaañu ñu toog ni tuuti Kadhafi lancé affaire ni nañu dindi juif yi te bàyyi diggante musulman yi ak chrétiens yi ñu doxal ñu d'accord ci ak moom mu gisee ak autorité yi nekk Vatican ñu d'accord ci pour doxal ko foofu ca Kadhafi ma toog rek Abdou Diouf touché ma président daal dégg na affaire ba ñu ngi koy doxal ca Tripoli mais moom xalaatam moo doon nga dem ca te nga dem ca yow rek ndax xalaat dagul daal pour yabal fa ku bokk ci gouvernement ma ne ko man suñ papa mu ne ma ah, si si si si parce que waxtaan nañ ci d'accord nañ ci d'ailleurs maa ngi lay wax ni Assane Seck

ma ni ko am na ku ma ci war a diisool ma ci diisoog moom ba noppi naa la gis ma woo Abdourahman Sarr Abdourahman doomu soxna susi la doomu Xaadi Njaay Sarr la Tiyaana waaw ñaari tànk yëpp tabarkal waaw te nag mooy sama doomu ndey mooy sama xarit waaw ma diisoo ceeg moom ma ni ko loo ci xam mu ni ma buñ ci jàngee alxuraan daal ting ci mën a dem ma ni ko wóolu nga mu ni ma wóolu na ma ni ko ay ce mu ni ma kon maa ngay seeti Serigne Diop pour ñu jàng alxuraan ma ni kon dal sama xel dalul mu ni ma ah kay buñ jàngee alxuraan rek jeex na mais dafa génne rek oto yan ko waaw ba ci guddi ga yàlla xam na ñun ñëpp ñu jaaxal parce que xamuñu lii lan waaye terewul Senghor insisté li ma dinaa la boole sax ak Boubacar Obey Diop moom journaliste la léegi nekkatul ministre journaliste la ngeen ànd parce que xarit ngeen wax na dëgg ma àndandoo ak Boubacar Obey parce que Boubacar Obey ba ñu xale ba léegi ñu àndoon maa ko may soxnaam Mariama Ba maa ko ko ñaanal ca Ba jox ko ko waaw wax la ni yàgg nañu ñu àndandoo dem waaye rek yoon wi naqa di ci man ndax deewu Abdourahmane dund sax bëggatuma ko yàlla xam na e ba ñu demee participer nañu ñaari délégation am na fa délégation bi jóge ci église Sénégal ak ñun muy ñaari délégation yàlla àtte ci intervention Kadhafi am ñu comprendre parce que devait intervenir en tant que universaliste ah, voyez, intervenir en tant que musulman ça il faut le dire mais am ne comprendre ba délégation chrétienne pour Sénégal bi am naam defe ni Kadhafi dafa attaqué la chrétienté te dafa amoon rek euh, incompréhension am ku jóg daal ni oui Sénégal marabu yi dañuy exploité talibé yi lekk seen xaalis teg leen impôt lekk ko mer waaw ni ma damay tontu ma ni ko boo koy def àdduna di tàkk ndax duñ la tudd ni ko bu ko def mukk mu soog Maniko bàyyi ma ni ko gis nga kii eh, mer nii il n'intervient pas en chrétien il intervient en sénégalais ma eh, tous les sénégalais sont comme ça ma ni ko teeyuñu mukk ma ni ko moo tax rek ëpp nañoo tontu ñu bàyyi noonu a été monseigneur ba lay Paris a collaboré la délégation du Vatican bi affaire parce que tu lu gàtt parce que discours bañ yañ fa daan def ci a mu ni au nom de la chrétienté universelle

ñëpp kontaan noos ci ngoon gi ku ne noos rek baax na eh, pour wax la nii mësuma fàttaliku eh, jël responsabilité jot ci yu mel noonu te duñu ko def parce que loolu mënul nekk waaye itam du duñu carax nag politique politicienne kooku daal du suñu wàll te du duñu ko def parce que jaru ko même bërki démb ci affaire maison des esclaves maa ngi koy wax parce que am na ñu jógee États-Unis ñu ngi fi gàmmu si fi te bind nañ